mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen site 28 pro seen émission ndogu li découverte wala bokk entretien exclusif boo xam ne nii dafay dox ba fii ci Mbàkke sunu première numéro nag. doon seet si sunu xarit sunu wëllëre koo xam ni maanaam Mbàkke lu yàgg mu ngi nii ñu santiroon benn euh, euh, benn standby benn standby bu ndaw ci média bi milieu médiatique bi moom nga xam ne dañoo ñëwoon tey seet si ko waxtaan ak moom ci seen émission ndogu li entretien exclusive sëriñ Mbaye Mbengue mbokk yi moom mooy sunu gan ci émission bi dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ko sunu mbokk internet yi ci seen site 28 pro bu ko defee ñu jublu ci waxtaan bi. waaw salaamaaleykum rahmatullah wa barakaatuhu ñu ngi lay ziare di la nuyu bu baax Sidi di nuyu waa sud bi yëpp 28 euh, pro TV di leen ñaan yàlla yàlla yëkkati leen ba fi ngeen bëgg a ngeen àgg fa ci wàllu média di nuyu nag euh, waa senegal gépp rawatina waa Touba ak Mbacké jiite nañoo bi sëriñ Mountakha Bassirou yàlla fa yàlla yàggal te wéral ko di nuyu mboolem kilifa diine yi ci réew mi yëpp di ñaan yàlla koor gi ñu nekk. yàlla nangul ñu ñu dugg ci ak alhamdulilah bisimilah rahmaani rahiim génn ci ak alhamdulilah rabbil alamin yàlla nangul ñu ko lépp lu ñu ci jaamu yàlla rek yàlla ko yàlla nangul. la fii nga nekk euh, ab euh, entrepreneur boo xam ne nii amoon nga ay marché euh, ci état dafa mel ne mus nga am yooyu noonu yaa ngi continuer di di exercer loolu noonu ba léegi wala bàyyi ngay projet yi état yi. non état maa ngi ciy liggéey ba léegi maa ngi yor sama entreprise di liggéey maa ngi ciy liggéey wax dëgg yàlla macha allah yàlla ngi ciy suturaal. Euh, ndax ñun liggéey rek lañ xam man dama naan ba may nekk ci ba ma nekkee ci politique ba léegi nii man dama naan l'heure de politique moom ab période la bu passé moom damay liggéey moom naka jekk liggéey laa jiital ci lépp waaw parce que nag liggéey mooy tax nga mënal sa bopp te doo doon doo wekk sa bopp kenn ku dul yàlla. am ci marché état. waaw état nag tegg naa sama loxo ci tànk ci ñoom. parce que xam nga entreprise sénégal yi dañoo soxla ku leen dimbale. xam nga boo liggéeyee ba noppi. nga mën a toog ay at duñ la fay ngay mujj dem ak ñoom contentieux wala nga dem ba nga xamee ne fa nga war a jote nga xamee ne sax agence judiciaire de l'État wala man am naa ci ka yoo xam ne man man maa ngi koy dund. lancé yoo xam ne réalisé naa ko depuis 2018 da ci topp ba léegi mënumaa jot sama xaalis nga dema dema dem ba agence judiciaire de l'État mënoo jot sa xaalis xam nga loolu neexul te lool entreprise sénégalais yi dañ koy dund entreprise sénégalais yëpp ñooy dund loolu. moo tax nan war a développer ba euh, développement bu day des te gis nga am réew mënoo ko développer tant que di créer woo ay acteurs de développement ci sam réew. ci local acteurs locaux parce que loolu mooy waral Sénégal lu mu doon milliardaire milliardaire fii ne social yi nga dégg yi gën a rëy ci Sénégal milliardaire Sénégal yi yee koy def. mais entreprise étranger yi ni jox néew ñu duñ wax étranger c'est normal il faut ñu wax ak ñoom mais ñu boole leen. fi ne nii entre booy dégg mu def benn social ci ci koor wala mu benn social te lu mel ne G3S lu mel ne euh, Ablaye Dia nit ñi defee ci arxuraan ji di ko def ci mbind mi def ay grand prix xam nga yooyu parce que c'est des Sénégalais dañuy dund Sénégal dañuy dund social. mais est que est-ce état di jàppale ci benn côté wàññi leen impôts yeeg ak taxes parce que lu mel noonu ñoom dañuy defal seen réew ma ku mel ne ñu nga tudd léegi. est que sentiruñ seen exactement loolu nag xam naa ne moom laa wax dama ne la état moom boo jàppalee sa doom ba mu mënal boppam ba àgg ci benn développement bi rek sa bopp ko defal parce que li nga ko li nga ko jàppale yëpp day duggaat ci yow dana créer emploi dana dugg ci social. dana def ay développement yoo xam ne ni yow yaa fa waroon féet yow état moom mu la koy defal kon état moom du ko regretter bu dee or que étranger bi nag étranger mënul ñàkk ndax am na technologie yoo xam ne nii étranger yi ko am faaw nga ñëw nga nga boole nag Sénégalais ñu def euh, transfert de technologie yooyu nag bu amee day tax ëllëg nga am say doom yoo xam ne nii réew mi daan ko mën a yor parce que Chine li muy rëy rëy rëy rëy de cent quatre-vingt wala soixante-dix-neuf jëm quatre-vingt ba tey jii nii mais Chine boolu wuñ ko sax ci monde bi mais tey jii boo Chine mënoo def dara sans Chine te li ko waral maay maawo ba mu bindee la ñuy bindi mais tëju leen nan liggéey nan fexe ba li ñuy consommer ñu mën koo defal suñu bopp. suñ premier client la doon ñun mooy léeg-léeg un milliard quelque population boobu ñu fexe ba mën a dundal seen bopp mën a solol seen bopp mën a seen jumtukaay boobu ñu mën ko defal seen bopp. waroon naa wane ne Sénégal balay bi mën na fee jor ceeb mën na fee am carotte mën na fee am suppe mën na fee am li ñuy dundal lépp mën naa ñor Sénégal. parce que boo xoolee même xaal bi amaat nii rek xaal période nawet la am ci fin saison nawet mais tey jii rek espagnol yaa ngi ñëw di ko bayee fii di ko yóbbu Espagne da dem ci supermarché yoo xam ne nii made Sénégal lañ ciy def xaal bi di am à tout moment. gis gu mag sax ci euh, zone suñu zone bi mu yëngatu ci wàllu mbayam xaal. waaw exactement tey gis nga xaal yi euh, même nii nii nii xaal tey la gën a baaxaat donc ñun ñoo am loo xam ne nii yàlla li ñu ci dimbale man damay jënd États-Unis benn xaal nga jënd ko vingt dollars. vingt dollars ça fait treize mille francs wala nga oui bu dee xaal bu ndaw nga jënd ko dix dollars ba la gën a yomb dix dollars la waa ñun xaal yi ñuy jaay fii deux mille francs xaal bi ñuy jaay bi ma jëndee deux mille francs bu doon États-Unis la vingt dollars nga ko jënde mais kon ñun li ñu yàlla may du jeex. riche na mais nan lañ ko war a exploité. dañ ko sàggane loolu nag kiñ ci njëkk woo nag mooy le président de la république. xëy na mu xoolaat xam ne agriculture moom du lu ñuy toog ci bureau di ko développé. agriculture il faut nga descendre sur le terrain di déglu techniciens yi di déglu acteurs yi xool ba nga xamee ne tey jii kan man du ma ne rek naa aménagé tey jii les cent yi ñu war a def mais cent mille logements yi la ci lan la ci monde rural am mais monde rural bi doonee rek parce que même boo nee damay liggéey cent mille ko koo xam ne amul liggéey nan la koy fayee problème la waaye tey jii bu dee jox ko koo xam ne nii kat danga na ko cent mille logements jëlee naa la au moins dix mille logements yi dugg naa ko ci fleuve bi aménagé leen ay dafa la fa logement wu 6 millions ne la jox na la 2 hectares liggéeyal même kooku bu dee fay vers cinquante mille dana ci génn waaye laa sax nga subventionné ko jox ko ko nekkul jëkkal mais lam lay dimbalee rek mooy léegi nekkatul ndakaaru di ko di ko parce que ndakaaru dafa fees fees goo xam ne nii suñ ci jógul dans cinq ans wala dix ans kenn du fa circulé la fay nekk dootu ko attan. xëy na kon ak jëm ñaaju bi ñuy tabax xëy na nit ñi dana. jëm ñaaju mooy ndakaaru rek <laughs> jëm ñaaju ba tey ndakaaru la. fi ne nii jam ñaa mais nag nit ñaa daw tamit di génn di yiwtu comme par exemple booy xool Touba gi logement yi fi ne mi ngi fi gën a ñi ñaa ngi tabax si xam nañ comme li nga ñi ñi ngi koy sentir ba yiwtu dëkkuwaay yeneen eh, exactement mooy li ma wax gis nga boo xoolee Touba xam nga autoroute Ila Touba bi ni mu dimbalee nga xam ne loolu projet la boo xam ne macha allah président réussir ko nga xam ne eh, jógee Dakar ñëw Touba dootul tukki <laughs> da ngay mel ne kuy dem so soxla ñëwaat dem liggéey ñëwaat loolu wane na ne tey jii moo gën a développé encore nit ñaa ngi ñëw dëkk si Touba di liggéey si xëy dem ñibbi ma ñëwaat boo amee soxla da dem léegi Ndakaaru waññeekuwaat ñëw man dem bi may jógee Ndakaaru fa laa julee tisbaar ba noppi ba mu yàgg loolu ma départ fi laa julee si takkusaan te bu njëkk boo ma saan jógee Ndakaaru stress yoon bi rek mën na jàpp ba da waajal waaj ba far toog donc déplacement nag dafa baax ci am réew mooy de déplacement am infrastructure routière nga xamee ne fu mbay nekk lu mu sori sori da nga fa def ay ay ay yoon yoo xam ne nii nit ñi daan ko mën a jël indi ko ba pare dafay Euh, ay magasin de stockage parce que mbay gis nga yonent yàlla Yusuf alayhi salaam am na moment yoo xamee ni ci buur Égypte ba ba mu koy jël di ko fal ci lu mel noonu la ko fale woon ndax xam xamoon ban amee gént gum gént ñu wax ko ko mu netti ban ko waxee mu firi gent ga ne leen kat at mi dana naa lool waaye at mi tege day bekkoor buur ba nekko ko lan la war a def mu ne ko dañuy bay lu doy ba pare denc ko su baa bu bekkoor bi ñëwee du na benn problème mais ñi ko deful ñëpp am nan problème mais ñoom ba ñëwee yàlla dimbale leen atum bekkoor yooyu yëpp amuñ ci benn problème. am nañ dund bu doy am nañ euh, autosuffisance lañ doon dundee ba nga xam ne yëguñu bekkoor mais réew noonu lay doxee. kon bay lu am solo la. yaa ngi bay ba léegi. non réew moom munoo fexe ba munul jaar ci développement wu bay réew. mënut a développé tant que jaarul ci mbay. sëriñ Mbaye Mbengue ma kii moom mooy sunu gan ci seen émission ndogu li entretien exclusive euh, wax na lu bëri ci développement macha allah mais dañu nekk ci weeru koor ñu am bés boo xam ne nii dangeen ko doon def chaque année contexte Covid bi jaar fii ñu def suspendre ko ñaari at loolu yëpp Sénégal gépp ak événement religieux yi nga xam ne am na ci bëri dafa mel ne bés bi yaa ngi kay waajal tamit. ak naka nga koy waajalee ak nga fàttali ñu ci nga xam ne moom ngay màggalal bés bi. waaw bis bi moom ñu ngi koy waajal mi nga war a nekk le 23 avril bi ñu jëm mooy samedi bi ñu bu desi le 23 avril samedi ñu ngi koy waajal nag wax dëgg yàlla euh, li fi amoon moom Covid bi métti woon na métti koo xamee nii comme ñun ci ndigal la ñuy dox euh, ba sëñ bi joxe ndigal rek lañ suspendre lépp suspendre nan ko nag ci rassemblement bi waaye ci acte social yi ñu doon def moom teg dara tegu ci tegu tege ko ci woon ndax daanaan def lan war a def ci côté wàllu ceeb wàllu ndawal jox ko nit ñi jox ko jaamu yàlla yi nga xamee na ñoom bu bis bu jotee gis suñu mbooloo mi waaye kenn ku ne da toog si biir kër sentir ne màggal gi tey la. loolu moom naka jekk ñu ngi ko doon def amul benn at moo xam ne nii ay sàpp ko même daaw bi ma nekkee états uni fii lan toog lan war a def lépp ci ay ceeb ak xéewal defar nañ ko jox ko nit ba tax na da ngay mujj sax nit ñi naan ah lii sax dàqul màggal gi waaye nag màggal gi day boo xam ne nii dañ koy defal jàmbaar ju baax. jàmbaaru Serigne Touba koo xam ne dafa bokkoon ci liggéeykat Serigne Touba yi di seexub Serigne Touba muy Serigne Modou Thioune di taawub Cheikh Mor Thioune Mouride Sadikh nga xam ne sëñ Cheikh Mor Thioune moom Serigne Touba ko waxal Mouride Sadikh ko boppam xam nga Serigne Touba wax Mouride Sadikh moom bokkut ak leneen kooku mooy grade bi gën a rëy ci bi loolu nag doomam muy Serigne Modou Thioune moom la defal màggal gi sama waajur wu jigéen tàmbali woon ko daanaka bi mu ko defeeklee boobu ganee gu ma àdduna ëpp na soixante-dix ans ñu di ko def ba léegi ànd koog njabootu Cheikh Mor Thioune gi yëpp di ko def te jii ñu ngi koy préparé préparation boo xam ne nii wax dëgg yàlla euh, mobilisation bi ci am sax yéeme na ndax démb rek ñu ngi yendu ci jàkkee si ñoomar ji euh, fa lañ defee conférence walbatiku def fa réunion bu ci ci been boo xamee ni nii ñëpp a ngi koy waajal kon nag ñu ngi ci lance appel ci wo ñëpp waa Mbàkke ak daal ñoo ko moom ak waa Sénégal ak waa adduna bi. particularité bi ren ren la. waaw ren moom particularité bi mooy surtout li may gën a wax rek mooy ndax réew ñaar moo ko yore. jàng xam-xam wér-gu-yaram ak am loo dunde ñett yooyu moom tànk nit ki mënoo ko am sam réew mënoo doo dem fenn beneen bi ci mooy sam ndox tànk mënoo ko maîtriser mënoo dem fenn te nag ren ren moom dunoo bëgg ñu jógal ci thème bi nekk loolu nan la mën a fexe ba génn ci lii ndax senegal boo xoolee trois mois de pluie bi muy def rek mooy ñetti weeri taw yi li ñuy perte ci ndox ci milliards de kib d'eau yi dem kenn xamul mu toll te yooyu pourtant yii yëpp mënoon koy conserver nga xamee ne au moins danañu mën a yor six mois waaye dañ ciy perte bu dee Ndakaaru dañuy vider rek mu dem géej mais boo demee ci réewu tubaab yi amul benn réew moo xamee ni danañ jël seen ndoxum di ko vider mu dem géej. da koy conserver da koy conserver man ko conserver au moins six mois mais loolu nag su loolu daal mooy thème yi nga xam ne moom lañ ci bëgg a moom lañ ci gën a waxtaan ndax gis nga diine nikku rek ci xaala rasulullaay xaala rasul xaala laaw mooy. wax lii mën a dimbale nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nam yore woon adduna nekkoon buuru jullit yëpp daanaka nekkoon buuru adduna bi da koo yor ci xam yor ko ci diine yor ko ci politique politique boobu nag mooy politique bu wër bu wér te dëggu te sell. 23 avril incha allah fii ci Mbàkke ci Ndoyeen kon donc ni ngeen ko yéen moom mooy appel bi nga xam ni def na ko di ci woo mbooleem jullit yëpp ak taalibe yi wëllëre yi euh, politique de développement. Euh, wax nga ko ci biir mais baatu politique de politicien euh, bi nga xam ne euh, yow amoon nga ndombol tànk politique ci commune bu Mbacké dafa mel da ngaa bàyyi politique de. non bàyyiwuma politique. <laughs> wala maa ngi gisatuloo ci langue politique yi. <laughs> non lu waral tekk lu waral tekk tekkaaral. xam nga non c'est que du dekk tekkaaral moom ndax man maa ngi ci maa ngi politique ba léegi maa ngi waaye nag dafa am boo xam ne nii day am foo xam ne da ngay xaw a ralentir tuuti. Mm. waaw et puis jot gi daal màkk ñànk jot gi ndax. maanaam bi campagne bi jot mi ma fekk ma voyagé bi ne le 19 laay door a ñëw ak si fii le 22 du voté xam nga kon da lay fekk ci euh, moment yoo xam ne danga nga dul mën a boole loolu ak politique. ndax man li ma wax mooy sama sama liggéey moom damaa gën a lépp waaw loolu la waaye nag politique bi moom duñ ko ba ndax li ma la wax rek politique de développement politique social waaw bu dimbali nit ñi loolu moom du ma ci jóg mukk mukk bay laa yu mu diine mbàkk gii noonu mën a fexe ba mu am ndox mu baax xam ne ànd soppi ndoxum Mbàkke mii nii ñu taxawee di xeex loolu Sénégal gépp lañ ko xeexal ñu war a fexe ba Mbàkke ndox am ndox mu sell mu baax Touba gii mën a am ndox mu baax parce que Touba aussi waruñoo toog ñu naan deuxième ville du Sénégal mais Touba li muy dugal ci budget national mais kenn xamul mu toll. parce que boo xoolee bu nee budget bi kat mille milliards trois mille milliards la mais jàppal ne Touba lu gàtt gàtt ci li muy fay ci impôt li muy fay ci TVA li muy fay ci ay recettes. Euh, te li muy fay ci recette yoo xam ne nii mi ngi dugg ci budget national mais lu gàtt gàtt mille cinq cent milliards dugg na fa mais mille cinq cent milliards yooyu nag ragal naa ne jël lenn li dugale ko Touba pour indi Lac de Guiers bi mu ñëw Touba mais wàññiwul dara. d'accord moom projet boobu moom jàppal ne projet bu dul taxawaal la parce que projet yi bëgg-bëgg sëñ bi te sëñ bi xaaru ci état xam naa ni yitteem gépp te murit yi ñu ngi commencé di dox ci loolu ne am na ci ay experts yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey mais. yow dafa mel ne ñi nga ni nga sóoboo woon ci jàppale politiciens yi nekk Mbàkke wala boog di di wut di mobiliser loolu bi bi nga xamante ne local yi weesu euh, da nga def politique à distance jàppale peut-être am nga ñëw jàppale parce que voté nga moom. quelque ak lu mënti xew voté nga. xam naa ne sa commune doo toog te doo voté mais politique de distance bi nga doon def boobu foo nekk nekkoon. non non euh, politique naa parce que ñi ma war a jàppale jàppale naa leen. non ñëpp rek xam nga man APR laa bokk donc comme comme maa ngi ci Macky Sall Euh, jàppale coalition bi coalition bi jàppale naa leen ñi ma ci war a jàppale jàppale naa leen yàlla dogal na commune Mbacké ñoo ko gagné wax dëgg yàlla di féliciter le maire Galaw Ba yàlla defal ko ci ndam parce que doon maire yombul su fekkee ne yàlla dogal na bëgg nga dara ba yàlla jox la ndam li nga nga gagné ko loolu wax dëgg yàlla réussite bu rëy la. loolu dana wane ne kon président Macky Sall dana amaat confiance ci département bi dana amaat confiance ci dëkk bi loolu nag bu ko ndam dafa mel ne. amatul couleur colorant politique ñëppay bokk ndey bokk bàyyi ànd ndey bokk ndey ak bàyyi pour développer Mbacké ndax loolu rek moo man a moo mën a dimbale Mbacké te loolu nag bu ko yàlla dogalee moom mu gañe ko nañ ko ñaanal yàlla mu réussir ko ba mandaam bii kat incha allah li mu bëgg ci ay projet wala li mu déggoon ci ay ci ay ay ay ay yàlla dimbali ko ba mën ko réaliser. moom la actuellement xam nga ko bu baax. moom Galo Ba non Galo sama doom la Galo moom weesu naa xam ko. <laughs> lim nekk lépp bul bul bul ma wax nag euh, waxu en tant que maire bu bees dëkk bu bees nga dikk ne xam naa ko par rapport ak ni mu nekk woon xam nga ko bien avant ci li nga xam ne moom nga amee yaakaar ba fal ko. non Galaw weesu naa ko xam Galaw moom ñoo bokk lépp wax dëgg yàlla moom doomu mbake la euh, mais Galaw dama daan ñëw biroom naan ko bàyyi dugal ci politique. xam naa ne bokk du ma ne man maa ko njëkk wax waaye ñi njëkk a wax ne dugal ci politique ndax ñun ay mag lan parce que aussi gis nga politique. yàlla lu kenn course bu jóg nga doonu mool loolu Ibra Gueye yàlla ko yàlla yërëm te yéex daana ko wax yàlla mooyu ko kenn day am foo xam ne nii da ngay ay relève nday ñëw ay xale di ñëw yeneen changement di am nga nangu ko nag jàppale leen mais moom ba ma ko daan wax loolu sax danaa ma non non naa leen bàyyi terrain parce que terrain bi dafa métti mais gis na ko tey donc man Galaw moom wax dëgg yàlla yàgg naa ànd ak moom ci lim nekk tey umpaliwuma ak moom ci lu mën a doon ndax daf may woo ma di ko woo di ma envoyé message ma di ko félicité di ko jàppale ci lu ma doon donc loolu suñ ko jàppale suñ bopp lañ jàppale ndax suñ doom seen jarbaat yoroon fi benn mouvement boo xam ni da doon jàppale sa wóllëre yàlla na yàlla seral ya xam Iba Gueye mhm. di laatloo mhm. ñu dégg récemment mu dem ci local yi am benn am ñaari conseiller mhm. yàggul dara président Macky Sall recevoir ko mu dem ci coalition Benno Bokk Yaakaar loolu ban jàngat nga ci am ah mais yàlla man comme ci coalition bi laa bokk wax dëgg yàlla moom bu ci ñëwee rek sant yàlla te Ibba nag euh, ba léegi ni ko yàlla ni ko yàlla defaloon ci Mbàkke wax dëgg yàlla ba nit ba léegi nit ñaa ngi koy bëgg kon Abdoulaye loo mu fekkee ne taxaw na pour suqaliwaat loolu couleur Ibba Gueye yi ak mag ñi ak euh, ñi nga xamee ne moom seen xel du jóg ci moom mukk ñooñu bu ñëw bu yàlla dogalee moom mu yëngatu ba na ànd ak moom première élection nga ñëw am ñaari conseil loolu du caaxaan kon bu ko président Macky Sall recevoir loolu macha allah mais président Macky Sall li ma koy lancé mooy. que les responsable politiques APR yi nekk Mbàkke na leen recevoir parce que loolu aussi tax nañ ñu bari teggi seen ndax nit ki mënul bu yëngatoo feneen nga recevoir ko te kii yëngut sa biir kër doo ko recevoir loolu département Mbàkke ak Touba dañ koo jooytoo jooytoo jooytoo ba mu xamee ne kenn xamatul loolu dafa mel ne président Macky danaan non ñii moom boolewuma leen sama programme te lool nag Mbàkke ñun amuñu loolu moom man sama xarit la <laughs> kenn ku ne xam ne ni ma mel ak Macky Sall moom euh, sama xarit la te da koy da koy wax wax dëgg yàlla lu ma ma nga ca. suñ màggal gii day da ciy yónnee teraanga jum ci war a def da koy def mais nag nit ki boo dee ànd ak moom it da koy wax dëgg waaw département Mbacké ni muy recevoir yeneen département yi jaadu na mu recevoir département Mbacké wax ak ñoom. léegi dana ko def ndax euh, am na lu mu fi mustaam muy gagné. gagné gii mu gagné nag dafa war a jaadu mu gën a woowaat acteurs politiques yi waxtaan ak ñoom renforcer leen ba nga xamante leen damay recevoir yeneen dëkk yi waaye li muy recevoir beneen responsable bu mu mën a doon wala nikki ki ko contre ba gagné nit ki ko contre. ba am ay voix nga ko mais kii ànd ak yow di la indil sax donte benn voix la su même su gañewul may war nga ko recevoir wax ko su gañee nga encouragé ko su gañewul nga woo ko lan moo tax gañewoo loolu day tax waaw góor day yokku ngóora waaw. alors euh, sa sa sa sa jàppale Macky Sall day wéy ba faw wala am nga fooy séentu euh, bu mandat bi jeexee. non Macky Sall moom li fekk mi fi moom moom laa jàppale wax dëgg yàlla. non bu fi nekkagul moom. bu fi nekkul <laughs> waxatuñ ko loolu moom wax yàlla xam ah. yàlla rek xam ndax li ñëwagul ëllëg moom suñu borom rek ko xam wala eh, waaw wala axlamu donc xëy bi moom wala xëy bi samawaati wala xam loolu moom ci yàlla rek la eh, moo ko xam. yaa ngi pare législative ah waaw ñu ngi koy pré ñu ngi koy préparé kay. coalition wala dem fenn. non xam nga ça dépend. Ah, parce que boobu moom beneen mbir la am na yoo xam ne nii il faut nit ñi bàyyi ko xel loo bëgg bëgg bëgg nit ak loo far far ci coalition am na loo xam ne nii mi ngi mel élection locale wala législative. président buy soxla 2019 mais dama summee ko jàppale ko def ci samay mooy def ci sama lépp ñëpp gis ma donc leneen lu am lu ne nag na ci yëg sa bopp wala gis ko ci te loolu lii waraloon nag mooy waxtaan ak nit ñi woo leen déglu leen waxoo leen dara mais su boobaa euh, day kenn kii jëm kii day jëm fi kii jëm fee voilà. Euh, Serigne Mbaye Mbengue sunu émission jeex na euh, loolu la ñu cërale woon ci waxtu xanaa rek kàddu yi tàggatoo ak ñaax li nga xam ne ñoom ñooy population bi. waaw euh, yow dama leen di remercier bu baax ndax euh, wax dëgg yàlla li nga wax rek média bi moom dama ko doon daw lool ndax ay ati ati ngi nii moom daanaka bu ma nii leen damay enregistré sax ma ne ko baax na waaye nag yow mënu ma laa euh, bañal dara soo ma wooyee dama dama laa bëgg jël pour interview la loolu dama koy nangul dama la koy nangul ndax yàgg nan di la ñaanal aussi seen site bi yàlla yëkkati ko ba mu àgg ci gën a site yi gën a kawe Sénégal ba télévision judd ci leen ak leen judd ci kon di ñaanal aussi waa Mbacké di ñaanal Touba di ñaanal waa Mbacké Touba di ñaanal senegal di ñaanal adduna bi guerre bii nga xamee ne am na yàlla ci yàlla bis ndox mu sedd ndax guerre moom fépp fu mu am ci adduna bi rek ñëpp ko yëgandoo daanaka donc nag lu mel noonu nan ñaan yàlla yàlla def càmm ci adduna bi te sëñ Mountakha mi yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi nga xamee ne naal na ko Serigne Touba fu mu ko bëgg a àggale mu àggale ko fa. ci barke sëñ Tuubaa jërëjëf. jërëjëf euh, sëriñ mbay Mbengue mbokk yi moo nekkoon sunu gan ci seen émission ndogul yi entretien exclusif euh, xam naa dafa am beneen boo xam ne nii da ko ci bëggoon a dolli. waaw ñu ngi jégalu aussi di di di di jégalu ci ki nga xam ne moo gën benn waxee sëñ Mountakha rek waroon ko ci teg muy sunu xalifa bi muy sëriñ Mame Mor Thioune ak sëriñ Mor Thioune xam ne mooy xalifa bi Cheikh Mor Thioune ndax bis bii ñu taxawal ñoom ñoon ci jox ndigal ñu di ko coordonné ñoom ñooy kilifa yi kon a wax dëgg yàlla ci seen digg rek la ñuy dox voilà loolu laa fàtte woon ci départ bi waaye ñu ngi koy jégalu bu baax a baax. mbokk yi kon le 23 avril la incha allah fii ci Mbacke Ndoyeen euh, nga xam ne donc événement religieux la bu am solo ci taarixu ak euh, li nga xam ne moom mooy yoon wi kon mbokk yi rek euh, ci fàttali ñu ngi dalaloon Serigne mbay Mbengue di opérateur économique moom mi nga xam ne mooy waajal tam bés bi ak ay mbokkam ak i wëllëreem yëpp ci caméra bi Omar Sarr la ci réalisation bi Bekay Ndiaye ci kaddu gi doon présenter si di Diakhaté di leen dig daje ci ak seen sit 28 pro ci yeneen jotaay yu ni mel.